Euh, sur le coup bi ma gisee euh, message moo dawa euh, dama dama tiit parce que dama tàmm bu ma teelee jóg. Mhm. julli ba noppi damay lire actualité xool lu ma guddee guddee tëdd par rapport à mes émissions parce que damay ne am na lu mun a xew xëy na dinañ la soxla rédaction euh, ainsi de suite. Mhm. mais ba ma gisee message ma dama tiit ci saa si laa ko yónnee message. Mhm. ne ko euh, lii nan la mën a demee. xam nga réew mi euh, jaxasoo na. lu tax ma tiit parce que man jour boobu deux heures du matin laa tëdd mm. sama émission jeex une heure et quelque je rentre seule certes euh, bu fekkee maay li mais xam nañu koñ yi nu mu mm-hmm. mel euh, du ñëpp certes mais après da ngay tiit tu te dis euh, man damay def émission yenn saa yi nga def post suñu saaga la ñu wax la yenn yi mm-hmm. donc du coup sa xel dafay ñaaw tu commences à te dire finalement qui est en sécurité mm-hmm. donc loolu bokk na ci loo xamante ne nii métti lu nañ ko bu baax a baax Maymuna di ko ñaanal mu jug ba bu mu ci am benn séquelle. Mhm. parce que tamit euh, gis nañu image yi bokk tamit ci ñi nga xamante ne nii nee naa am na yoo xamante ne euh, yaay la. Mhm. Euh, jigéen la. yenn image yi warul di daw. Mhm. donc man bi ma ko gisee mënu moon xool. ba mu àgg mais quand j'ai entendu sa voix sama yaram daw. ma xalaat ne bu la fekkoon yow nga nekk ci poste bu nga xam ni kon yàlla rek mooy dimbali nit donc encore une fois. dañuy ñaan man boog personnellement mhm. loolu laay wax mhm. euh, suñu euh, takk yi nga xamante ne am nañu jumtukaay yi am nañu xarañte bi am nañu taxawaay bi nga xamante ne suñ leen soxlee ci yenn enquêtes yi ñu koy def donc lii nañu ñiital nañu ñiital askan bi ñu xam kan moo def lii may mu na ñu mën ko teg loxo parce que tamit euh, bëgguñu mu daal keneen bien muy góor muy jigéen bëgguñu mu daal keneen koo xamante ne nii doomu réew mi rek la tey mhm. jëriñ askan bi donc war nañ ci taxaw bu baax a baax